asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaaw ñaar fukki fan ak ñeent ci ramadaan muy weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki juróom ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukki fan ak ñeent dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci gaaw bi rafetul ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma mucc ci mboolem bàkkaar yi ak màng mboolem jëf yu baax yi allahuma inni asaluka alsalaamata min kulli ism walganimata min kulli bir allahuma inni asaluka alsalaamata min kulli ism walganimata min kulli bir xadisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bëril leen fàttaliku aji dog bànneex gi maanaam nañuy bëril di fàttaliku dee xadis bi at-Tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak aksiroo dikra haadimi lazzaati yaani almawt rawaahu tirmidi waxtu bi lii suba waxtu na tàbbi cinq heures trente-huit juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett tisbaar treize heures trente-quatre benn waxtu bu tegal fanweeri simili ak ñeent takkusaan seize heures trente-quatre ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñeent timis dix-neuf heures vingt-trois juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett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 cinq heures trente juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili waxtu dog wi dix-neuf heures vingt-trois juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin